asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 15 novembre 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglikaay yi mu mel ni ki nag yëglikaay bi di sunu làmb fa la xëy doo rek ko jàppal yëglikaay bi nag tey fenn la xëy ñëw ki nga xam ne nii day moo di Boy Kayre bu Soumbédioune moom la xëy dalal Boy Kayre nag mu nga xëy di wax la mu xëy di wax nag lenn la maanaam daal tafaatin la mel ni daal xëy tey di ko wallu wala mu koy wooteeg wallu mu koy wooteel ak wallu Kayre daal yuuxu na ba baat ba sës mu wax a wax a wax te wax ja nag yëglikaay bi jàpp na ne daa mel ni ci xool ba la ko tibbee nee na daal VIP ñoom lay waxal nee na li leer ba leer li ñuy def la ñu war a bàyyi daw bi ñuy daw tafaatin dañ ko war a jël bëre ak moom ndax Boy Kayré daa jàpp ne tafaatin dafa bokk ci làmb ji kon nag wax ji ñuy wax ak di daw ku ne wut foo dugg foo aw loolu la ñu war a dakkal te jël tafaatin ñu jàkkaarloo ak moom bëre ak moom Boy Kayré na tafaatin fi mu nekk nii daal ni mu ko jàppe sax mooy seul contre kenn koo xam ne moom ñépp la fi nekkal kon daal Kayré daa jàpp ne nañu ko jël bëre ak moom diggante Ama ak Modou Lo tamit Kayré dafa jàpp ne lu mënta ñàkk la mbir la moo xam ne moom lu dul bëre waruñu ko koo def ñaari mbër yi daal bëre dëgg la war a def ndax nag heure ba dafa jot leneen loo xam ne tamit ñëw na ca muy ki nga xam ne mooy Balla Gaye ak Boy Niang na ci boobu combat ak leneen bi nga xam ne wala ay bëgg-bëgg yoo xam ne am ko jàppal ci seen écrit ba na daal ba vingt cinq combat ak tamit titre roi des arènes wala sax sunu lambu door bi loolu lépp booy Kayre da caa ñëw bu dee Boy Niang nag ak Balla Gaye des koy wax moom Boy Niang moom sunu lamb ne na li leer ba leer def noppi la def maanaam daal cel la def génnut fenn ñu gis ko mu communiqué ci lu jëm ci loolu maanaam daal mu ngi toog ci ruqam jàpp njàmburam keneen koo xam ne tamit ñëwes na ci moom muy lig Nicolas ma nga xam ne yëg likaay bi ne na daal fi mu nekk ni day daa mel ni koo xam ne daal diggante Ama ak Modou Lo ji day daal dafa mel ni fi mu nekk nii mu ngi ciy traîner lépp yee maanaam daal dox gi mu ciy dox fi mu nekk nii nekkul dox gu dëgër wala boog ak taxawaalu la ko yëglikaay bi boog mën a waxe mu mel ni ki coow li bëri na fi mu nekk nii ci làmb ji bu baaxa a baax a baax leneen loo xam ne tamit dañ cey ñëw muy koo xam ne ab animateur la woon nekkoon fa nga xam ne mooy ca RTS léegi nag yëglikaay bi ne na moom Xaadim Sàmb li leer ba leer ab promoteur bu làmb la la neex nag mooy kani tëgg na combat boo xam ne moo war a dox ci diggante Eumeu Sène Senior ba nekk école Mor Fadam ca Géejawaay ak Bour Sine bi nga xam ne moo nekk écrit Bawal yëglikaay bi nag nee na ñaar yi ñii moom le 9 février la ñuy wàcc ci géew bi bëre ka nag mooy Xaadim ma ngeen xamoon mu nekk RTS wala mi ngeen xam wala mu nekkoon RTS ñii moom seeni mbir doxul la ko waral yëglikaay bi ñëw na ci maanaam benn combat la ñu am benn victoire waa école de booy bambara mu mel ni ki tamit absence su ka nga xam ne mooy seen kilifa di booy bambara daa mel ni daal feeñ na lool lool ci seenub liggéey wala ci seen écrit boobu nga xam ne nii day moom mooy école de booy bambara yëglikaay bi moo ñëw tey wan ñu lu mel noonu wala mu wax ñu ko keneen koo xam ne tamit yëglikaay bi daa ñëw ci moom mooy Tafa Gueye 2 Tafa nag abu ñaasa lay dànkaafu ne na ko li leer ba leer day yow abu jàppal ne dugg nga ci guddi goo xam ne bët setagul te bu bët setee doo yeewoo fu la neex ndax bala ngaa génn ci man moom di nga wax lu set mu mel ni ki Tafa Gueye moom dafa xëy da tey daal dal ci kaw abu ñaasa di ko dànkaafu bu baax a baax yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk fa nga xam ne mooy ca Leewtoo TV mooy King Kong King Kong moom que mu xëy di waxal mooy Bombardier nee na comme dafay nekk ubbi porte nday maye sens na ñëw may ma sens nu bëre ndax pare naa ngir bëre ak moom nees itam ne na bàyyiwuma ko fi buy ñëw ñuy defante ñu ne ko yaag buuse mu ne ba ko kenn wax waxi buuse ndax buuse du mbër lim fi nekk mooy wër di sinap ak di waxi waxi dofam kon na yem ci sinapam te man mu bàyyi ma bëriwuma ak moom tey bëriwuma ak moom suba te sax nag bul ma ko wa wala boo la ma defoon wal fajri toj fa taabal ma def ko foofu nga xam ne mooy ca Leewtoo TV mu mel ni ki xam ne moo di King Kong loolu la xëyee leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko ca Lutte TV mu di vidéo diggante Baye Mandione ak ki nga a a metti defante bay gën a metti ñoom ñaar ñu nga foofa di fa defante defante bu saf-sap muy Baye ak ki nga xam ne moo di xoyantaan moom dañu fay dem bañ fa demee nag lañ fa fekk ci jàngatub Abou Ndour mooy li nga xam ne nommé nañ ko général Malika ne ko at miy jeex mbër yi bëre simple yaa ci raw yaa sànni karawaas gi yaa ci dàq bëre ba jox jox ko li nga xam ne nii day mooy trophée ba ña ko def nag muy waa ANPS mu mel ni Abou Ndour nag daa xëy ñëw indi ci cib jàngat jàpp ne foofa coow am na fa ci diggante général Malika ak ordinateur ndax nag Abou Ndour nee na bu dee général Malika la moom fukki trophée ak ñett la gagné ci saison bi nga xam ne moo jeex am ci lu toll ci juróomi juróomi million yu tegal waaw yu tegal juróom-ñett ka nga xam ne nag moom moo di ki nga xam ne nii day moom moo di ba tey général Malika boo bëggee dégg-dégg Abou Ndour ñëw na nen champion du Sénégal la tamit ci cent vingt kilo fi nga xam ne nii moo ci drapeau de l'État ba pare daan rëg-rëg waaye bu dee ordinateur ab nur ne na am na vingt-huit trophée daal di am lu toll ci juróom-ñeenti millions yu tegal ñett mu mel ni tamit gagné na li nga xam ne ni day moo di ab oto nekk na tamit champion du Sénégal ci kilo yi mu mel ni ki loolu mooy jàngatu abu ndur waaye ki nga xam ne daal moom moo di général Malika tamit gagné na sax ay Jakarta mu mel ni ki daal kon foofa coow am na fa waaye coow la moom lu muy tartar di leer ba leer moom général moom ne nañ ko ci saison bi nga xam ne moo jeex ci wàllum simple wàllum simple boobu bu demee ci Leewtoo point net ñu ngi na fa li nga xam ne moo di un million ña ko def nag ñoo di waa Amalda waaye li leer ba leer tam tam jara jàpp mooy ci weekend yi nu jëm wala fan yi nu jëm la ci jiitu mooy sëñ Modou Niang moom mooy ñëw le 24 novembre la indil diggante BMW ba nga xam ne ni ab bool bool la ak petit baboy ba dëkk ca Pikine mu mel ni sëñ Modou kon bi waaye le premier décembre tamit kenn na fa jaar mooy borom Ndiaye production la mu ñu indil mooy diggante ba dëkk ca Lamsar di doomi jàmm gën ki nga xam ne nii day mooy Jokkel bu Fatick moom itam dëkk ca kër Kër Massar mu mel ni ki kon daal fi mu nekki nii lambi dóor ja moom léegi ma commencé kon ku ku ku mu ci doon nammal say loxo jàngam xeex te waajal xam ne dóorante nag jot na fi mu nekk nii nag moom bu dóorante jotee moom ah mën a dóor mën a song mën a laxu mën a riñaan mën a dëbb sol mën a lalli mbaa sax nga mën a pad tequm biir wala caxabal loola ci neex takkal defal galajaanig lépp am na ci bëri ba leen néeg jàmm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 Amin Babacar ni ñëw nag ak sunu laam sunu laam dafa xëy nag euh, dalal ki nga xam ne mooy euh, Boy Kéré euh, nekkoon béere béere vert moom écurie Soumbédioune moom nag tey dafa xëy nag wax na si ki nga xam ne moom mooy tafaatin nee na Tafatine mbër la si biir làmb ji la bokk la moo tax mbër yi di ko daw dafa am wàll si biir si làmb ji Babacar. waaw loolu muy waxi Boy Kayre tey ñu koy nuyu di ko ziar bu Soumbédioune xam nga mu xëy tey mel ni koo xam ne daal ni mu dikkee maanaam. sol robu avocat daal solal Tafatine robu avocat ah waaw loolu nag xëy na li mu mu gis mooy que ni Tafatine dañ ko war a jël mu bëre parce que loolu xëy na du moom rek a koy wax bëri na ñu koy wax xëy na moom fii kàddoom mën a yegg ñenn ñi seen kàddu mënu faa yegg parce que na moo tax tey yëglikaay bi daal kon nag waxul ci doomam waxul ci kenn mais moom it moo tax mu ne kon VIP waruñu fi ne di dem dikkal dañ ko jël bëri ak moom effectivement Tapha Tine dañ ko war a jël bëri ak moom parce que ñu wax tey làmb ji ren te newuñu la Tapha Tine Modou Lo lu valable la tafaatin Tine Ama Baldé lu valable la Tapha Tine Balla Gaye de lu valable la Tapha Tine Bombardier lu valable la Tapha Tine Gris Bordeaux lu valable la Tapha Tine Boy Niang lu valable la képp ku nekk tey ci ngi comme ni ko kay waxee ñi ma leen ak ba ci Lac de Guiers de Eumeu Sène ñoom ñooñu ñëpp Tafatine amut ku mu ci dul bëreel kon actuellement yaakaar na Tafatine waroon na nekk mbër bi gën a neex a wutal combat ci làmb man sama gis-gis quoi. waaw Babacar loolu moom am na solo keneen ki nga xam ne moom la nit ñi nag di wër euh, waa sunu làmb boog di ko wër mooy ki nga xam ne mooy promoteur Luc Nicolas neen daal moom bu mu waxee combat Ama Baldé Modou Lo ba léegi gisaguñu avance mi ngi traîner daal les pieds réer na mën la. mbër <laughs> ñoom Modou Lo ak ñoom Ama Baldé. waaw loolu doy na waar léegi ñu koy nuyu di ko ziar di nuyu waale doomam di suma xarit di suma gayan Willy maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko wax ne gëj naa ko dégg William waaw léegi nag comme noonu ko yëgle kay waxee daal traîner traîner les pieds maanaam dox ba gisatuñ ko wala boog dox ba dëgëratul li am solo daal mooy que ni moom moo déclaré woon ne que bëgg na combat bi. doxoon na ci tamit bañ na juboo na benn mbër bi di Modou li ci des mooy côté Ama Baldé loolu nag defe naa chaque jour nit ñi wax ci xëy na nag li ci des mooy fi mu nekk nii daal toog di déglu parce que olof na seetaan waaw dàq ci am ndaje lig nag promoteur bu mag la xam na itam li muy def xëy na bu fekkente ne juboo am na dina ñëw jël combat bi bu ko arrangé su ko arrangé wul tamit mën na seeti leneen parce que itam lu ñuy wax rek yàlla am na beneen yàpp bu nga bëgg am la fa lool loolu lay dëgg Babacar keneen ki nga xam ne nag moom moo changé stratégie waxatul si presse bi defatul benn communication moom mooy Boy Niang dëgg bu mu waxee ni que bëgg a bëri ak Balla Gaye boobu ba léegi journal bi nga xam ne daal nee na daal motus et bouche cousue yi maanaam daal dafa may daal pacte bi daal la maye fan yi daal. noppi ah waaw xam nga itam dafa am loo xam ne bu la bu la bu amee ci yow. c'est très normal xam nga ñu ngi wax ko maam ak Balla Gaye te am na lu mu ci am moom bëgg na combat bi xam nañ ne wax na ko ba pare am na si lu mu jógee la mu jógee nag la mu ci comme ne ci ëmma seen rek am na loo xam ne bu la arrivé ci saison nga bëre ñàkk yenn ñàkk yi defe naa ne li la war nag doo nekkatul ay wax da nga war a làqatu dem liggéeyi waajal sa bopp xëy na booy ñang ci loolu la nekk moo tax mu noppi waxatul gisatuñ ko xëy na day waajal pour ëllëg su amee combat waaye li may waxaat bu mu jàpp ne Balla Gaye 2 rek moom mooy adversaire bu mu war a bëreel non non non bëri nañ adversaire ndax Tapha Tine ñu doon wax léegi diggante mag Boy Niang làmb daa ko te ñoom ñaar kenn mënu cee bañ sa moroom nag loolu am na solo pro euh, euh, Babacar làmb ji am na promoteur mu bees muy Xaadim sàmm ndax nee nañu dina ñëw le 9 février euh, tëgg combat bi nga xam moo dox si diggante am Junior ak Bour Sine te arène nationale la ko yóbbu. waa Xaadim Samb di suñu papa di suñu lépp waaw di suñu sax royukaay laay wax di ko ñaanal jàmm di ko ko yéene bu baax a baax ndax ku ne gis na liggéey bu am solo bi mu doon def fi nga xam ne mooy mooy RTS ak Sud FM tey nag yaakaar naa ne làmb moom nit amul lu mu ko ci war a mën a jàngal. defe naa comme si jàngalu doo ko si jàngal kon su liggéeyee RTS ba retraité wala ba liggéeyatu fa tey mu nekk promoteur de pour ñëw tëgg làmb defe naa loolu du ñu man def lu dul kontaan ci ñaanal ko yàlla mu réussir ko ba pare tam mu am ñu combat espoir bu neex ndax Eumeu Sène senior bi ku ne gis na combat yu mujj ak ni muy bëree nekk école de Mor Fadam Bour Sine moom waxaale wuñ ko daaw ñàkk na ci maam Lamine mais ku ne xam ne ne jàmbaar la kon suñu papa Xaadim Samb daal loolu mu am na solo tamit daal parce que ku yokkul yaa wàññi kon moom ñëw na daal te dompat sax nag olof ne na ci sot la ndey Gumba Fall. Babacar nag loo xam ne mën na koo bañ a wax muy lu insolite loo xam ne lu yéeme la économie ba euh, Boy Bambara benn combat <laughs> benn victoire lañu am si saison bi dikkee. waaw loolu moom doy na waar si écrit vraiment kon daal jàppal ne moom ah euh, tuuti na trop parce que benn combat benn victoire moom. kon xëy na côté management bi war nañ ko xoolaat parce que am ñu ko yore administrativement di ko manager ci seen utuk ay combat nga xam ne ñoo yor mbër ya fa nekk kon manager yi am nañ ci part responsabilité na tamit lenn mën na gën a causer problème bi mooy booy bambara yi ne nii mooy personne morale bi sañ ci école ba yàlla def mu wéradi xëy na yëpp mën na nekk li nga xam ne mooy indi loolu ñu koy ñaanal yàlla tamit yàlla na ko yàlla wéral xam nga bu ko defee xam nga parce que daal loolu moom tuuti na trop trop trop par rapport ak école booy bambara te am na ay xale espoir yu fa nekk Babacar suñ jógee sunu laam lañu dem fi nga xam ni moom mooy record record daal abu nee dafa teg benn débat moom daal nee na euh, débat bi daal si digganteem général Malika ak ordinateur bi nga xam ni euh, général Malika ak ordinateur nañu daal euh, contesté xaw nañu contesté tuuti meilleur lutteur bu ANP jox parce pour moom abu constat mu def maanaam nee na général Malika am na 13 trophées contre 28 trophées pour ordinateur ordinateur fu mu gañee 9 millions foofu général Malika gagné na fa 5 millions Babacar waaw loolu moom moo jàngatu abu nduur la nit ki nag am nga droit jàngat li nga yaakaaroon li nga gis yaa ngi dégg waaye tamit waa ANPS ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo def seen ay vote ba génne ay point général Malick rawe lu bëri loolu defe naa ne ma des na cee sukkandiku mbir mi nag mën nga ëppale waa ji ay trophée mais yan trophée parce que trophée major dafa am ci trophée yi yan trophée nga gañ ak ñan nga gañ loolu tamit question bu jar a posé la parce que général Malick am na lu am na ay parce que dafa am lu mu gañe yaa ngi dégg drapeau sur le table naa moom lañ fa nommé meilleur lutteur bi yaakaar naa su ma jumul yaa ngi dégg mu nekk fa champion du Sénégal yaa ngi dégg ba pare te yaakaar naa amu fa defet ñu ne déet ne waaye mbër mi nga xam ne defe naa daan ko tey ci làmb mooy xibaar mais daan na daan na du xibaar muy rëg-rëg mu bëreloo ko Adrien Senghor daaw daan ko rëg-rëg ba mu ci jógee te waa avec la manière rëg ba mu ci jógee bëréwaatul ci lit simple bi defe naa ba ni mu ñëw bëre si ak giri de jóge ca doog a voyagé kon defe naa général Malika boobu buñ ko ne yow yaay maire bi ah xel war na koo nangu terewul nag premier fu mu amee deuxième dina fa am ordinateur mbër la champion la dàq koo bëri ci lamb jafe na ndax mën a bëri tax ñoon ko ordinateur mais nag yaakaar naa xëy na dafa am foo xam ne général war na ko fa mën a rawe te léegi yaa ma koy wax maanaam comme tey buñ ne la nga nekk champion d'Afrique am fukki médaille d'or ak ka nekk champion olympique am benn médaille d'or defe naa borom borom. olympique benn olympique moo gën a fort médaille champion d'Afrique. kon noonu lay demee kon xëy na trophée majeur yooyu général dugal yaakaar naa est moo tax mu raw ko nu ñu rek ñoom ñëpp ay xale lañ saison bi démarré na. nañ commencé ñu xoolaat déwén lu ñuy indi incha allah. te Babacar sax comme lu ñuy wax rek ki choisir élimine te foo gis euh, kenn euh, jël paie toujours na am contestation mais nañ ko teg rek si cadre sport teg ko si cadre fair play na xam ne sotti seeg def si la rek je pense que déwén xëy sera la chance de ordinateur pourquoi pas. wala keneen sax parce que du ñoom du général rek fi ne wala ordinateur gis nañ xale yi bi saison bi nañ ñoom selee Euh, nañ leen di xool rek ci performance yi ñuy def ak yan ak façon performance la ñu def loolu dafay am solo quoi. loolu am na solo Babacar nu jeexee nag ak euh, Leewtoo point net nga xamal ni dimanche incha allah Amalda teg na 1 million fee si Adrien Senghor. waaw loolu am na solo ñu leen di ñaanal yàlla tamit parce que ñoom waa Amalda association ñu leen di nuyu di nuyu seen président di wax ne kon dimanche daal. ku añ ba pare rek bu mun jotee waajal nga dem Adrien Senghor di nga seetaan laamu neex incha allahu rabbi Babacar si kàddu yoon leen tàggoo di leen jox dig daje lundi incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow sama doom euh, Mouhamed Diouf di nuyu ki nga xam ne mooy Mbaye Seye depuis Ouest Foire di nuyu nag kenn ki nga xam ne mooy doomu Astandine ak Khadija Diallo muy Mame Diarra di seexu Mouhamed ndax jour mu koy ngénte jour boobu la xam Mouhamed judd moo def anniversaire lundi di ko souhaiter un joyeux anniversaire depuis l' école d'Arc naan ko dundal ba fekkee ba tere say waajur ki nga xam ne muy Astandine ak Khadija Diallo yokk sa yaay moom tey ji di dédicace bi ñeneen ñi bokkunu amin ndeysaan am na solo amin yàlla def loolu si maam jaara moomu waaw ndax yàlla def tamit mu am barki turandoom barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais du nuyu internautes yi rek encore une fois di leen ñaanal xam nga maam Modou bi taalibu Serigne Mbaye Sy képp koo xam ne daal yaa ngi suivre Leewtoo TV à travers le xam refi bi la ak lu mu ci mën a doon xam nga ñoom ñëpp fans club bi du ma leen parce que ay nit xëy groupé wu jàpp jàpp ne Babacar mi war nañ ko pousse mu gën a dem sa kanam ñu sanc seen fan sa club ma di leen nuyu ñoom ñëpp ñoom Pape Ndiaye Mass xam nga maam Abdou Baye Zal Jiga Grand Lay Cédric ñoom ñëpp jib seen maam góor jasaaka du ma fàtte kenn ñoom ñëpp nuyu naa leen minute nuyu tamit waa axlu làmb Sénégal waa Njaay production tamit groupe WhatsApp la waa Daaru Salaam jam production groupe baax nuyu naa ñëpp balu ñëpp ak ñaanal ñëpp jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa